cent ba 2017 c'est 57 ans quartier bu mel ni Grand Dakar su ne mosul am ministre mosul am député doo ko gëm au moment wu ay Point Babab dañu am ay 2 3 députés ñaar tey dam Grand Dakar mosul am c'est-à-dire que ñun loolu doomu Grand Dakar ko mos a xeex. Khalifa Sall moi je pense que ñi mu àndal ñoo ko xaw a sànq mais ñoom ci wax nañu Karim Wade mu nekk candidat Karim du sax ñëw du ñëw sax Sénégal. opposition bi xam nañ ni mëntuñu mobiliser a dem foofu boo dee xool en réalité ñu fa nekkoon mën nañu sax 200 personnes.